ñëw ci tomb bu mujj bi te mooy yoonu murit te ki ko taxawal di xaadimu rasul juboo ceeg boroomam wéttali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon ku wéetal boroomam ci ay waxam ak ci ay jëfam te doon ci yar mbooleem ñamu jaboote ña fekke woon ay jamonoom wax na leen ñu dégg ña fekkewul woon ay jamonoom mu bind bàyyil leen fi kon ku bëgg a xam dara ci diggante sëriñ bi ak boroomam dellul ci li mu bindoon ku bëgg a xam diggam ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam dellul ci ay mbindam ku ca dellu te sëriñ bi tax laa jóg danga xam fooy teg sa tànk ndax bokk na ci ni mu doon jàngalee ni mu wéetale boroomam wax ne allahu jalla ahadun wa huwa samad laysa lahu min walidin wala walad walam yakun jalla lahu kufuwan ahad wa sarmadam bil mulki walhamdin farad ashadu annahu l ilahu wa anna ahmada rasulul aabidu ba tey muy gën a leeral ñépp ki mu doon ak fi mu ne wax ne inni la abdun xadimun lin nabi naawiya nafi aqrabin wa ajnabi mu dellu wax ne allahu rabbi wa alallaahi ihtamat kulli bila sirkin wa habasa samat mu teg ca ne nabiyuhu muhammadun nabiyi alayhi taslima muxiitin hayyi dellu wax ne muhammadun wasilati wa sanadi alayhi tasli alayhi man ka alayhi man kafaasal fanadi salla alayhi man kafaasal fanadi muhammadun afdalu man tawallada wa xayru walidin anaaral balada mu wax ne sama diine mooy diini ya tawxiidu ilaahi nnaasi bi sunnatil maahi munal unaasi wa siqtu billaahi bilal tifaati wa binnabii xatmaha afaati kon ku bëgg boole sa bopp ci njabootam nangul mu yilif la bu ma nee njabootam mooy képp ku jaayante ngir nekk ab murit sëriñ bi nag ku mu yilif ku ne la mu la sant la ca jëkk mooy nga mooy jàngal ba xam nooy toppee yàlla te bañ koo bokkaale te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon sa royukaay ci diine ji moo tax ñi ne ay morit lañu te seen intérêt yi àdduna tax ñu bëgg indi ci yoon wi lu ci bokkul woon te dara niriwu ci diine ba noppi lépp ñu di ko xëpp ci kaw yoon wi ba àgg ci lenn ci mbindi sëriñ bi ñu mel ne dañu koy nëpp nit ñi ngir sàmmee ko si war sàmmal sëriñ bi ndono li war nañoo yokk seenug farlu ci jàng ak di jàngale te ñu xam ne ña daa defar te yoon wi ñor leen seenub lim wàññiku na te ña daa yàq seenub lim yokku na sëriñ Touba la mu daa jiital ci ku koy liggéeyal dafay fexe ba nga deñu réer xàmmee ndigali yàlla yi ak ay tereem xamal la nooy toppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bari na kilifa yuy dajale mbooloo te benn baatub soññee ci wàllu diine doo ko fa dégg kane seenu taalibe la tey foye diine ji ñu xam ca lu wér du tax ñu artu ko wala ñu jéem koo teg ci aw yoon dañuy bàyyi noonu ngir sakkanale ko seeni addiya ak teye ko seeni mbooloo kilifa yu bari nag addiya ju sakkan ci la ñuy joxe garaatu murit saadix garaat boo xam ne nag kala nar a bégale moom amagu ko ay nax la moo tax sëriñ bi bindoon wax ne ñi ne ci man lañu aju ñeenti xaaj lañu mu ne al mutaalliqiina biha ala arbaati aqsaamin awalan wal ibaada yadxuluuna al jannata wala yarawna al xisaaba fi dunya wal axirati wal mutaalliquuna biha maa al xidmati bila ibadatin laa yadxuluuna al jannata ila baada al xisaabi fi dunya wal mutaalliquuna biha bila ibadatin wala xidmatin ala aw daxil kasib wal mutaalliquuna biha maa al ibaada bila xidmatin ala kasibin xafiyin hakaza al amru wa amara bi tabliqi haza ila jamihi nnaasi sawa ankaane kaana yafalu saalika am laa yafaluhu nga gis ne ñeent yii mu lim bi ko ci gënal mooy murit murit bi boole liggéey ak jaamu yàlla yoonu murit fii mu ne nag dafa jot sëkk bépp sëriñ wala ab seex bu sëriñ Tuubaa seexaloon sa maam te boo noppee tuddoo yoon wi doo dese dara say nelaw waru la bari ndax lii xew ci yoon wi lii xew ci yoon wi léegi te ku ko bëgg a faj baye boo tàmbalee ko ci sa biiru njaboot ndax sëriñ si ak seex si ci yoon wi benn itte lañu waroon a am mooy dekkal taali jàngu yi te yeesal ak tërbiya lii moo mën a delloo yoon wi fa mu ne woon démb te mboolem ndaw yi fiy jéem a yëngu ci jàng ak a jàngale am na ci ñu mat a jàppale te kuy wut foo mën a delloo sëriñ bi njukkal waroo leen a weesu ku mu tax ñu delloo ñu di la ormaal ku mu tax ñu di la ormaal nag yaa ko ameel njukkal ndax wóor na la ne sëriñ bi am na fu mu la féete kon nag képp kuy nangu addiya war ngaa xam ne sëriñ Tuubaa tax kon li mu gënoon a bëgg boo ko ca nekkalul war ngaa taxawu ña ko ca nekkal te alali addiya warula am jot bay tëdd ci ay bànk moo tax may sàkku nag ci kilifa diine yi képp ku ci am baatin boo mën a ràññee alal ju lew ak ju lewul ba boo ne jàkk alal ja lu mu bari bari nga mën a xàmmee alali riba la wala déet ndax addiye yi kat léeg-léeg alali gert tàbbi ci walla ku jël alali jàmbur mu di ko wër ku ci am baatinub xàmmee leen nag baye boo nga gaaw ku ko ci amul nag ba mel ne xàmmee woo dollar ak CFA la ca tane lu ñu la jox nga fexe ba xam lu tax ñu jox la ko bu boobaa war ngaa xam fa mu war a dugg ndax mbirum baatin suñu borom jagleelu ko ñépp ak wilaaya deesu lijjanti yàlla fekk la ca te ak njabar ëpp naa jaawale ak i baax ba tey am ñu ñu ci yoon wi amuñu menn maam mu mas a topp sëriñ Touba ba noppi la xam ci yoon wi bariwul te la ñuy wax la ca rafet lu néew lay doon moo tax jéem a xàmmee ci yoon wi ñiy defar ak ñiy yàq lu baax la waaye li mat a xam mooy jeexiti ju baax du doon jëmmi kese cëf lay doon moo waral danga gis fu jëmm teew ba noppi jëf ya waroo moo tax képp ku ne sëriñ Touba nga àndal te royoo ko képp ku ne sëriñ Touba nga àndal te royoo ko ci jom royoo ko ci ngor royoo ko ci ni mu wéetale boroomam na nga xam ne jariñoom liggéeyam nga fi nekkee waaye féetewoo ko fenn sëriñ bi nag li mu am xam na fa mu am mu ko fa moo tax mu ne saharali anna rasulallahi wasilati qatxan ila al ilahi katabtu anna laaha jalla ahadun wa samadun wa huwa lil multaxidu katabtu annahu taala lam yalid wa laysa mawludan wa yasqil mujtalid katabtu annahu lwadudu wal ahad jalla wa lam yakun lahu kufan ahad kitaabuhu xasinati wa jaari wa faydahu jalla li sadri jaari kasbiya tawhide kasbu kasbiya tawhide ilahiya aljalil wa mathu hibbihi wasilati alxalil laa usriku say abi rabbiha wala wala lii moo tax ku koy tuddoo ku ne war a sukkandiku ci am njàngaleem di tuddoo sëriñ Tuubaa nag dafoo toog di fesal sag murit te royoo ko di fesal sag murit te royoo sëriñ bi nekkoo ci bëggam te yoroo wenn melowuñu wu ñu xemmee ma roy ba ku ci yem ba ku yem ci yow xeeb yoon wi nekkoo nekkewoo fi lu dul yor sam xel ak saw làmmiñ di ko naxe ñi yàggagul ci yoon wi te amuñu ngo sago ci sëriñ bi lépp ngir bëgg a dunde taalibe yi sëriñ Tuubaa yi waaye ku ci moytuwul di di jéem a fooyee pas-pasub jàmbur da nga mas a weeru ab taalibe nag dafa war léeg-léeg mu wéet fi barab xoolaat boppam mbaa wàccul yoon wa sëriñ Tuubaa xàlloon ndax jamono bii nu toll ku ko wàcc tegaat la ca dootu yomb am na ñuy niru ne dañoo bëgg a gindi ñi réer waaye dañu leen di gëlëmal moo tax yoon wi ndegam yàlla def na nit ñi ci biir bari nañu te am na ci ñu jub te yàlla may leen xam-xam ca wàll wa ñu féete ba noppi am xel mu rafet mu ñu mën a jëflanteeg àdduna ñenn ñi yàlla jox leen wërsëg te yéene nañu ko yoon wi kon li des mooy boole ñi war a ànd te ñu bàyyi xel ci ne jamono dafa soppiku te ku fi ne faaw ngay làng ak moom lu ko mooy mu raw la te bu la rawee andil lay gàllankoor yoonu murit nag lépp lu nar a woyofal ab cëram ci réew mi warees naa xool lu ko sabab ndax am réew boo ca bokkee am fa mbooloo mu am xam-xam am fa mbooloo mu am xam-xam ànd ak seeni xel yor wërsëg wu ñu mënale seen bopp lu waay di nas ca réew ma war leen caa boole bari na loo xam ne nag ku ko am te xamoo ko mën naa wàññi sang moomeel te lu ñépp bokk bu ko ñenn naree féetewoo mujj ga mat naa xalaat bu loolu jàllee dëkk bii di Touba faaw ma wax ci tuuti ndax ñi ko yilif te dëkke ko bari na lu leen fi ump te war nañu koo xam ndax dëkk bi yaatu na te bunt yi bari na kàccoor yi yokku na te ñay jàmmaarloo ak ñoom lu nekk lañuy daj te lu xam duñu ko wax ñépp waaye lu leen waay di ñaanal na doon nañu am ngërëmul sëriñ Touba waaye nag bu kenn jàpp ne sa jàmmi biir kër mooy jàmmi pénc mi Touba nag naga ni waroon naa fekk mu am ay liggéeyukaay yu bari ndax liggéey dafa bokk ci li sëriñ Touba digle woon ngir murit bi mën a am lu mu